lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yëral journal yu bëri nag daal dañuy xëyee dikk tey jii si journée sans presse bi nga xam ne nag dikk démb la woon nag si talaat ji le quotidien yéenekaay ne daal di dikk ñun nag si journée bi nag dañuy xamal ne gis nga journée sans presse bi boo bëggee dëgg dëgg lépp jaar na yoon lépp RAS gaa ñu topp nañ ko moom mat nag kon nag lii ab signal fort la de waaye boo bëggee dégg-dëgg nag Walf Fadjri télévision moom kott nag si yi gën a mag fii si Sénégal moo respecté kon li nga xam ni mooy moo d'ordre bi de te lii ab gàcce la Amadou Ba ancien premier ministre ma ngay demandé nag ngir ñu daal di trouver ab solution su ne gis nga nag ñu ngi ak pouvoir boo xam ne xaamuñu daar nag si priorité te lii ab gàcce la Waly Diouf Bodian nee naa nag gis nga journée sans presse égal journée sans impôt dèjà nag c'est perdu d'avance ah jaru dóor say doom de enquête quotidien daal di dikkal nag si journée sans fii réew mi kon nag daal la ñuy li nga xam ni moom la digaale woon de yëeg lëkkaay bi ne gis nga nag RFI ba si BBC nga jaaree ko nag si ay chaîne yi nga xam ni mooy mbir bi de yëeg lëkkaay bi ne gis nga RSF ba si UPF kon nag ñoo ngay dooleel ñi nga xam ni ñoom ñoo di média sénégalais si xeex bi nga xam ni ñu ngi koy xeex tey jëmale ko nag si journée sans presse bii les échos yéen a kaay ba si direct news nag ñoom ñëpp nee nañu bi ab réussite la de direct négativement si li nga xam ni mooy si taarixu Sénégal si jëmale ko nag si liberté de presse ak d'expression yëeg lekaay mi nañu nag gis nga si ñetti at yi jàpp si atum

gis ak nañ ko amalee kon nag moo wute ba na ku si rek am nga sa firndeel bii waral nag tax nga daal di li nga xam ni mooy journaux sans presse bii te kenn ku si si ñoom nag lu ëpp nag dafa ñu démb ay activité de wala sax ñu daal di li nga xam ni mooy ay journaux Maguette Ndong Ngom yore kàddu Synpics ay kàddoom si biir journal bi nee na nag dafa métti rek waaye nañ ko wax tadee nag gis nga ab menace nag dëgg la ñu nemmeeku si liberté d'expression te lii de maanaam nag kon nag daal di dal si kaw Diomaye ak Sonko ne gis nga ñoom ñaar ñii daal dañuy dugg nag ci guuta goo xam ni te fu ñu jëm nag day mel dañoo bëgg a nasaxal li nga xam ni mooy démocratie réew mi te lii day wàccee réew mu Sénégal turbine yéen a kaay duñu biir kàddu moom Bougane Gueye Dany daal na koy yëkkati ni ki si journée sans presse biis Bougane ne hé attention ndaka nag coow li lépp xam nañ nag ana ñooy taskatu xibaar yi nga xam ni kon nag ñoo doon jot ay transfert li nga xam ni mooy mot bi source à quotidien na gis nga journée sans presse bii moo nekk nag élément bu njëkk nag si bilan immatériel bu régime mu joomaay ndaxte suma gaañi di ki démb digle bi gaañi jëfee nañ ko de li si gën a neex nag mooy gis nga ñoom média internationaux yi nag kon nag à une des médias lañ ko def de ku si nekk nag daal di koy waxtaane yëgle kaay gis nga nag monde nag si boppam nag de te lii nag AFP si boppam nag moo ko daal di constaté takaaruwaa yu nga xam ne ñoom nag kon nag tàmmoon nañ nañ nag chaque jour matinal ñu dem ci kees kii nag daal di jënd li nga xam ni mooy journaux yi de waaye nag su ma gaañ daanaka a banque seen yoxo nag ni mel nag RFI ci boppam nag moo ko daal di seetlu source à jëmale ko nag ci waa Walf Fadjri de kon kay boo na koy yëkkati nag jëmale ay lekkkatu médi ngeen de kon nag lépp leer nag ndekete yéen yéen ay liggéeyal Ousmane Sonko Bougane na ñi nga xam ni yéen a nekk Walf Fadjri ma ne la li ngeen di def nii honoré wul li nga xam nii mooy digle ak liggéeyu Sidi Lamine Niass de kon nag yéen ñii Ousmane Sonko ngeen di liggéeyal te nag moo leen doon yónnee xaalis waaw lépp leer na nag bés bi ko gis nga journal sans presse bii nag kaay ma wax la benn affaire waa RSF UFP UNSAS ak ñeneen ak ñeneen kon nag ña woote ab dialogue ngir ñu toog waxtaan ndax jàpp nañu daal waxtaan rek moo mën a indi solution journal bi di ñu gis nga rek ab benn ndaje boo xam ni kon nag war nañ koo amal nag ci diggante CAP ak société su ko defee ñu daal di toog presse bii nag te daal di wax nag bés bi le jour duñu indil ab rapport boo xam ni sa ay rëq-rëq rek lañ ci nemmeeku nag si biir DMP te moom jiiti réew joomaay nag jox nag li nga xam ne mooy rapport bi de nee nag a leer te ñenn ñi nga xam ne dañ doon tabax si booru géej mu ay luubal wala loo xam ne jaarul yoon kon nag jàppal ne ñii daan yeen convoqué nag ngir ñu leeral nan ak naka lañ ko amalee ñeneen ñi nag daan leen topp nag xool seen chantier ndax jaar naam jaarul yoon lii mooy dëgg bi le soleil nag daal di dikk ak nag ci domaine public maritime bi nga xam ni kon nag na bu yeboo hé na seen xel daal de chantier yi nga ni na moo am si waajur bu jigéen bu Marème Faye Sall journal bi nag daal la ñuy indi nag détails yi nga xam ni kon nag moo am si coow lépp nag gannaaw bañ ko dégloo moom goro Macky Sall bi nag démb nag si këram lañ ko dégloo de journal bi nañu kon nag gis nga Adama Faye doom ci ndiki tey jii dana janoog nag enquêteurs yi te coow li coow li nag ma ngay dem si li nga xam ni mooy wàllum suuf lii yëpp nag kon moo topp goro njiiti réew mi woon Macky Sall Sud du Quotidien nag daal dikkee ñun nag sa assemblée nationale ndaxte ndiki démb su ma gaay ñu ngi fa woon de ngir xool nag naka la ñuy def ngir coppiwaat nag règlement intérieur bu assemblée nationale journal bi nag gis nga nag boo a kaay ne ko gis nga nag règlement intérieur bu assemblée nationale kon nag daal lañ koy modifier aljuma la ñu ubbi woon di ki démb nag te commission technique kon nag bi nag war nañoo daje ngir waxtaan yëgle kaay bi gis nga nag loi bi nag ñi ko porté nag bokk na nag si 69 députés yi nga xam ni kon nag ni ki démb la ñu teewoon te Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly daal di ñëw si assemblée bi nag waaye de télévision ne wax naa Amadou Ba premier ministre nag te nekkoon candidat benn bokk yaakaar si élection présidentielle bii na eh Amadou Ba suba da nga ñàkk élection yi de lu leer laa la wax Madiambal Diagne nag gis nga Ousmane Sonko nag d'accordoon na ngir ñu daal reporter tuxal li nga xam ni mooy présidentielle bii Karim Wade sax si boppam d'accordoon na si waaye nag Amadou Ba daanaka moom kottu nag moo si d'accord toon te li yëpp fi de gis nga protocole Cap Manuel bi nga xam ne ñu ngi koy ruumandaat ci suuf hé lu am la ndax man mii Madiambal Diagne dama see xam lu bari bari nag gis nga xam ni mooy campagne Amadou Ba a subir kon fi ne nii wax na lépp nag ni ki démb nag ci plateau mooy mën a nduur fay waaye nag révélation yi nga xam ni daal na koy def révélation yi doy waar la de <laughs> waa baax na rek yéen doog jàmm ba allah